Uh, sorti bu mujjee ak tex bu mu bind mi ngi wax ni boo leen jàppee ne man Adji saar dina uh, accuser lu toll ni viol Ousmane Sonko te aw ma ay euh, preuve loolu dama naan xamoo leen kat mooy Adji Sarr waaw waaw tey nag yow ñu ne jour ji mu ngi nii mhm. moo tax li ñuy wax naan te boo bëggul loo xamante ne bëggoo mu ñëw bu ko jàppal bés ça c'est vrai bu ko jàppal bés parce que ah, tey bés bi yegsi na tey jii nii donc yaa ngi ñu ngi lay laaj ay preuve mais indiwoo ci dara loo mhm. xamante ne mën nga ko teg ci table bi mhm. c'est dommage c'est dommage doy na waar voilà mi ngi noonu en tout cas daal doy na waar ndax <laughs> comme uh-huh. ni ko Ndeya waxee sànq rek dañuy gis à chaque fois rek bu ñu dëgmalee procès moom Adji Sarr day def ay sorties euh, di rassurer bu baax a baax sénégalais ñu ci ëpp ndax mi ngi leen di wax à chaque fois naan leen moom yor na ay preuves mais gis nañ ne que ni ki tey euh, bañ ko laajee preuve amul dara loo xam ne teguwum na ko ci taabal bi mu mel ni que ñenn ci sénégalais nee nañ euh, bu ñu lay séentu fenn bu fa bu fa bu fa génn parce que dafa am benn étiquette boo xam ne Ndeya dañ ko bëgg a takkal suñu justice uh-huh. naan dafay demee demi mesure wala deux poids deux mesures lay demee euh, ñu gis ne que tey moom Ndeye Khady Ndiaye elle est enceinte de huit mois euh, yàgg di laajte pour toog mais gis nañ ne que yéex nañ ko ko accordel bu baax a baax. effectivement yéex nañ ko ko accordel. Euh, mhm. ba sax par la suite bañ ko joxee siège wala ba ko juge waxee pour mu toog moom dafa daal di bañ. bien sûr que ne toogul ndax pendant des heures mu daal di koy toog mu daal di koy taxaw ci koo xam ne danga nekk en état mm. toll Ndeye Khady mhm. bañ ko laajee ci ña nga xam ne ñoom lay recruter ak tamit âge ba nga xam ne ñoo lay toll parce que juge bi dane ko juge Fall dane ko mhm. yow ña ngay recruter euh, vingt ans yooyu la toll mu ne ko est-ce que mën nga maa limal seen ay tour mhm. waaye tamit lam ko ko xamal ci côté euh, kaaw ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr ndax moom euh, Ndeye Khady Ndiaye mi ngi wax que ne Adji ba muy ñëw ci foofu noonu ca salon suite beauté pour mu daal di koy jël Adji Sarr moom ñaari carte d'identité la ko daal di indil benn bi mi ngi am vingt et un ans am vingt six ans Euh, mu nekk tamit euh, ñaari mbir yoo xam ne euh, doy na waar doy na waar wax dëgg fa neex yàlla mhm. waaye tam moom Ndeye Khady Ndiaye xamle na que ne mhm. soixante mille la doon fay mhm. ña nga xam ne ñoo liggéey foofu noonu ci salon sud beauté bokk na sax Adji Sarr moom tamit soixante mille la ko doon la ko doon fay loolu la daal di xamle kon moom mën naa ne yi Ndeye Khady dawul tey benn question ndax lañ ko laaj yëpp tontu na ci bu baax a baax effectivement lañ ko jot laaj moo dëgg fa neex yàlla tontu na ko moom Ndeye Khady Ndiaye parce que lañ ko laaj ci wàllu lan ngeen di uti lan ngeen di utiliser. Mhm. maanaam ban genre euh, li nga xam ne excusez-moi de. voilà bañ ko laajee ci wàllu euh, yan genre client euh, ngay daal ngay daal di am mhm. VIP wala maanaam client wu simple mhm. dane carrément client yi ñoom ñoo yem sama ay bët amul client wu simple amul client li nga xam ne moom mooy moom mooy VIP am maanaam daal day Khady Ndiaye lépp yépp question bu nga xam ne ak tenue yi ñu aussi ma sœur yi yan genre tenue lañ doon sol aussi mu àddu voilà mu daal di ci àddu waaye tamit Ndeye Khady Ndiaye mi ngi wax que ne j'ai déjà surpris Adji Sarr s'étaler sur le corps d'un client moom euh, Ndeye Khady Ndiaye moo daal di <laughs> euh, wax euh, li voilà mm-hmm. celui-ci portait un grand boubou et un bonnet à sa venue maanaam kooku ba muy ñëw mi ngi soloon grand boubou ak li nga xam ne moom mooy bonne ci bopp bi mais nag gis nañu aj Sarr daal di tëdd ci kawam moom Ndeye Khady Ndiaye <laughs> euh, moo daal di euh, voilà moo daal di àddu ci li ni mel mën naan daal liñ ci mën a jàpp mooy que moom Ndeye Khady Ndiaye jamono ji lépp mhm. loo xam ne mhm. xam na ko ci mbir mi wala lépp loo xam ne euh, mi ngi doon ko Euh, def ci boobile euh, salon daal dinay wax li bañ ko laaj tamit euh, que dites-vous sur du sacosi lu mu wax que ne je ne l'ai jamais utilisé pour un client te Adji moom mi ngi doon tudd li kon moo lay wan ne lépp loo xam ne Adji Sarr waxoon na ko rek moom Ndeye Khady Ndiaye na ko ba daal di indi ay mbir yoo xam ne ñu bëri naanewuñ ko woon ndox parce que dem na sax ba révéler la nga xam ne moom mooy révélé la nga xam ne moom la aj Adji saar doon fayeeku te pourtant euh, kenn xamu ko woon kon moo lay wan ne euh, lépp loo xam ne te mañ ko laajee tamit li nga xam ne maanaam euh, ña nga xam ne clients yi mhm. lan lañ doon comment dirais ñi nga xam ne ñoo doon liggéey foofu noonu lan lañ doon sol lam leen xamal mooy que mhm. dañ doon sol euh, tenue bu blanche ak tamit li nga xam moom ma bu verte waaye tuba yu gudd lañ daan ko boole. Mhm. kon ñoom foofu noonu ñu woon ay euh, solo yu gàtt yu sexy yoo xam ne dafay attirer euh, clients yi ci moom kon moom Ndeye Khady Ndiaye daal mhm. ci gàttal xam naa ci kanam tuuti nañ waat ci yeneen mbir yu nga xam ne leeral na ko mais moom daal indi na ay clarification yu leer nañu ca la nga xam ne am na ci bile bile mbir Abdou Fall wala Fatima ñëwal ma ci maanaam justice bi nga xam ne dafa am luñ ko doon Euh, benn étiquette bu ñu ko doon takkal ne que maanaam lañ ko doon séentu tey moom lañ gis mu demee parce que gis nañ ne que dafa elle est enceinte de huit mois waroon nañ ko jox mu toog parce que taxawaay bi dafa ah, metti woon mais xam nga <laughs> Fatima loolu ah. moom mën naa ne ci nit ki lay doon ah. xam nga Abdou Fall mën na ñëw am xolu yërmande mhm. ne ndeyaa toogal mhm. yow mën nga am Abdou Fall mën na bañ am xolu yërmande ne ndeyaa bul toog loo ci mën ah mais nit ki la loolu ci nit ki lay doon Fadima dëgg fa ne quant à ju bu juge ak mu bañ a doon juge moo ci yem mhm. ak nit ku maanaam loolu ci loolu humain la maanaam ci nit ki la offert mhm. yow yaay am xolu yërmande bi mhm. ne nit ki toogal wala nga bañ ko am mais ça ne veut pas dire que ne justice la léeg-léeg mais loolu ci nit ki la xam nga Fadima mën nga jiite dara mais nga am xolu yërmande bi maanaam pour comme ça policier bi mën na gis kenn war koo dóor mhm. mais am xolu yërmande bàyyi ko bañ koo dóor mhm. mën na ko dóor que mën na ko bañ a dóor ni mhm. sa la demee mën na ko toogloo que mën na ko bañ a toogloo loolu moom du ma ne euh, ci wàllu justice bi la mais loolu noonu ci nit ki la wax dëgg fa neex yàlla voilà loolu moom te loolu noonu sax euh, uh-huh. mu toog mm-hmm. mais nag dañoo daal di bañoon li ni mel après par la suite mm-hmm. lañ mu toog mais loolu moom ci nit ki la mais pas euh, ci wàllu justice voilà mi ngi noonu comme ni nga mm-hmm. ko waxee mu daal di nekk lu am solo may ñëwaat yow après après le temps ñu lay bàyyi. voilà euh, information yi nga xam ne moom mooy jukkee fële ca tribunal. suñu mbokk internet yi mën ngeen di abonné yéen aussi euh, waaye tamit di bës ci cloche notification bi dañu ñu may ay kër bu baax a baax ndax day da ciy baax euh, ngeen mën a protéger li nga xam ne moom mooy live bi ak ci Abdou faal ñu gis ne mhm. que procès bi mën nañ jàpp ne que lam ñu jural bari na lool waaye amul dara loo xam ne jural na ko mu nekk loo xam ne lu positif la ndax gis nañ maanaam jaloore yi nga xam ne moom moo ci am Euh, gis nañ bu ñu yeggee ci procès euh, ci li nga xam ne moom mooy procès économie bi ni tax muy taxawee mais élèves aussi ni ñuy bañee dem jàngi mhm. euh, mu mel ni que tey daal ñoom juge dinañ ko àtte tey mu daal di jeex mel ni que ñëpp loolu la ñu woon bu baax a baax ñëpp euh, loolu la ñu soxla que ñu àtte li nga xamante ni moom mooy dossier bii nii parce que mhm. maa ngi koy wax sànq rek lim ñuy jural ci ay yàqute dafay bari wala ci comme yi nga ko waxee léegi économiquement mhm. dañ ciy perte lu bari sànq maa ngi wax ci affaire u cag-cag yi tey am na ñoo xamante ne loolu moom mooy seen business mais tey mënuñu ko def parce que dañuy interdit moto yi daw mhm. donc loolu rek euh, problème lay lay lay indi mhm. gis nga Ndeye Khady Ndiaye mhm. wax na lépp li nga xamante ne tey jii nii wax na ko fa depuis euh, bi mu commencé wax ba léegi bi ñu koy entendre defe naa bi mooy ay septième fois xaw ma huitième fois muy taxaw donc kon tey jii nii lépp li mu fa waxoon rek amul contradiction par rapport ak ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr laaj nañ ko li nga xamante ne lan lañ doon sol wax na leen ko liñ mi la doon fay même sax bu fekkee ne euh, waru ko